ci biir foofu fa jël ba amaat ci dellu siwaat googu xabal bi ko balla xabal tamit caxabal waq wa ca suuf xam nga lu tax mu am xam lu tax mu loolu waaw bara da ko kor dóor ko arrière dóor mhm. tafaa sigi mhm. di gàl loxo bi mhm. bi muy gàl loxo bi nag ci la balla juyoog moom kon balla mu ngi doon xool tànk tafaay parce que gis na tafaa sigi taxaw tem tànk yi mel ni lu toll tamit tolloo waaw mu dugal caxabal bi weeru ko foofu tafaa mënoon na caa génn bañ a mën a génn nu mu ciy génne grand nan la ci nan waaw Babacar. bala Balla bi muy caxabal waa ji. loxo Tapha ci poxtaanu Balla la nekk. te te tànku droitam la caxabale tànku góosu Tapha. waaw. dégg nga bu baax li wax bu baax tànku droitam la caxabale. Balla tànku droitam la caxabale. tànku góosu Tapha waaw. loxo droitu Tapha. mi ngi nekk ci poxtaanu góosu Balla Gaye góosu Balla. mu ta bi mu taxabal noonu. Mhm. ci lay lalil loxoom we daw ya bala mu jëm fale côté boobu noonu da koy accompagner rek xëj tànkam xajal ko su fekkoon ne ma taxaw dinaa ko mën a normal. boo jógoon taxaw. bu ma jógoon taxaw. waaw dinaa ko mën a expliquer normal dama ne tànku Balla Gaye. waaw ci tànku góosu Tafa la la taxabal. waaw góosu Tafa la taxabal loxo droitu Tafa. Mhm. mi ngi ci poxtaanu góosu Tafa. Euh, Balla Gaye waaw. tànk loxoom nekk ci loxo droitam tafa nekk ci poxtaanu Balla. loxo day day aj loxo bi melni kou ku koy lalle. as mhm. xam la mi wax. Mhm. accompagner Balla moom momu daw ñëw côté bi ni waaw génn fi mu nekk. génn fi mu taxaw manam sa déplacement lay def. quoi sa déplacement lay taxaw boole tank bek loxo bi moy ànd mu dëw ya Balla. Balla day continuer xanaa xam nga Balla ba bi ñuy àgg suuf di daan. waaw boo xoolee waaw waaw parce boo xoolee. Balla mu nga mel ni luy dem di ah, beppeeku alors Babacar. <laughs> wax nga dëgg grand o oh. Balla nga mel ni luy beppeeku. mu ngay beppeeku mu ngay beppeeku mais daa mel ni liggéeyam ak souplesse am ak contagam daa mel ni moo ko gën a dimbali encore Tafa daa dem rek daanu ci eh, mu jéemu def benn action. ah maanaam biñ ko caxax maanaam biñ ko caxa bale biñ ko caxa bale kon maanaam jéemut a bañ. jéemut a bañ jéemut def dara te loolu noonu dal na ko contre Ama Baldé bi ko amaa Baldé songee. te amul dara lu mu jéem def daa dem daanu ji. Babacar ak Sow même buñ la betee def la ko ba ba ngay daanu jéemal dara. Hmm? da nga war a dara. mais du buñ la agee sore rek nga daanu. làmba ja jeex làmb ja jeex loolu loolu tamit aussi di euh, bañ baax na ci. te li ma la wax nii Babacar. waaw ñi xam su ñu ko déggee ñu xam ne li lu ma wax nii. non yow doo wax ci làmb lu di wet. yow yaa bañ ba ne bala bi muy daanu mu ngi. mu ngi daanu sax mu ngi beppeeku waaw. léegi nag bu fekkoon loxo góosu Tapha Bo loxo dro loxom boobu bu nekk waxtaanam bu ko accompagner woon pousse ko. Mhm. mu njaax sax mën na fa am. waaw <laughs> mais Tapha moom. wala ñu ñu dem vaar. Oh, merci mais Tapha daa dag rek moom bàyyeeku dem. waa njool de bu daggee bàyyeeku dem. Hmm? moom day day tout cas daal loo mën a dégg ci combat bi. Mhm. dégg naa nag coow bari na dañu ko téye ci sëriñ ak dañu ko def nii loolu duma ma ci dugg. <laughs> du ma ci dugg mais li ma mën a xam man sport laay wax. Mhm. Tapha Tine yaramam. musculation bi bari na ci yaram bi te wu ko ba yaram bi nooyi. Mhm. man daal loolu xam naa ko. Mhm. am na lu fort bu mu amoon. Mhm. gisatuma ko ci moom te bombor di ak kële. foor bi mooy xeex déplacé xeex déplacé yi mu daan def. ak détermination. bëre sport boo arbitre soufflé da nga ca war a nekk Babacar. waaw. des fois nga miime. moom sa yaram. mais mais mais attends xoolal ay Modou Lo li bëree. mii ma sëg sigi tuuti mii ma la mel ni luy dóor xoolal Balla Gaye xoolal hmm. Eumeu Sène mbër yu bari loolu la ñuy def ay hmm. saa tees boo yooyu noonu mais Tapha moom day léewaatoo rek nii non rakk ndaw liggéeyaatal sa yaram bi li la manqué xam nga ko liggéey ci utal ñu la ci liggéeyal nga liggéey ci sa rapidité ñëw sa vivacité ñëw si sa si ñëw kurpeñ war na mën a jóg sax lu mu gaaw gaaw nga jéem ko fente hmm. beneen bi xoolal Tapha Tine day bëri ñoo xam ne moo leen sut mais booy sëy da ko dóor. waaw ca ca Iba Mar Diop Yékini Senior da ko dóor. waaw ama du Bari. Ama Sène da ko dóor. ca ca arène nationale. Balla Gaye da ko dóor. ca Demba Diop ak arène nationale. waaw lan moo waral loolu chaque jour gars yi di la dóor. dugg sa garde di dóor la di dugg sa garde dóor la ba gën def lu la nekk pour lan. Babacar. wóorul de. loolu wóorul. dóor de. nee na wax naa fii ba taay na la mbëru bërekat saay boo ko dóoree. d'accord ma benn mbër di encaisse coup la may ñu naan dafa war a encaisse bi doog a daan ko encaisse coup bi daanu nooy daanu wax nga de wóorul de dafa wóor dóor ko ba pare mu doog laa daan kanam dafa sensible saa moo ci dóoree sa kanam noo def sa xel jaxasoo way way way loo mën mën bëre Babacar nga jël yenn coup di nga dina jaxase sa xel tuuti xanaa Balla kon loolu la xam dem ba tax mu woo ci xeex bi moom woo ci xeex pour jaxase ko premier combat ba loolu la ko defoon jaxase ko waaw waaw woo ci xeex di waat teg rek nga xam ne bu bu bu nekkee léegi xeex ba moom mu serse bëre ba mu serse bëre def action buy daan dóoree ba mu jaxasoo mm-hmm. mu dem def action bi koy daan mais dem tey ba tey Balla bu dóorut kon Tafa pour mu bàyyi Tafa mu lisit rek waaw pour mu daan ko du yomb mais da ko jaxase dóor ko ba lil ko bëre yëngatu dóor yëngatu dóor ba jaxase bi ñu doon wax naan Tafa Tafa Balla ñëw jël xeex ba moom Tafa moo waroon tarangu topp waa ji bu ne bëreet mu ne ko góos rang saay bu bare jógee mu dóor góosam bi bis bu dóoree ba gauche bi daal muy indi croisé bi droite bi mais looy looy jàppante. jàppante ba daa teel pour yow dafa teel jàppante ba dafa teel. dafa teel Sidi Cissé dafa teel maa ngi lay nuyu ndeysaan Kara Amin yàlla yàlla nangu ñaan yi ah Aliou Sow bëgg naa la Lamine ah Faye